tawa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 wa hiya ni'matul islaami wal iman wal ihsaan wassalaatu wassalaamu ala man axrajana min zulmatil jahli wa shaqaati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xaamil liwaa'il hamdi wa ridwaanu ala xawtina wa ganimatina al cheikh ahmada bamba radiallahu taala anhu wa nafaana bihi wa nafaana bihi ixwat al imaani wal islaami wal ihsaan wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa M Media Group Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xàq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu ñu suñu rëcc rëcc te nungul ñu suñu jaamu yàlla di ndokkeel ñépp nag ci weer wu tedd wu sell yi nga xam ne bii yàlla baaxe nañu ko ñu dugg ci neen yàlla nañ ci tàbbi ci bismillahi rahmaani ko ci alhamdulilahi rabbil alamin amin di ñaan yàlla mu doolu ñu dimbali doolu ñoo defal tawfiix wér ak fekk talba lépp loo xam ne lii moom lañ ca war a taxawe rek ci wàllu jaamu yàlla yàlla loola jàpp ndalal ko yombalal ko te ñu mën koo def it lépp loo xam ne lii lu ko ca neexut la lu safaanoo ko jaamu yàlla rek yàlla nañ ci yàlla musal jay seydina muhammad sallallahu alayhi wa di sonn sama bopp rek di sonn ñëpp ci ñu gën cee góorgóorlu ci ak sellal ci suñuy jëf ak suñuy wax ndax seydina muhammad sallallahu alayhi wa dafay wax ne man lam yadaa xawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharabahu jaamu yàlla gu mën a doon rek dañu te ak sellal suñuy lu feeñ ak nëbbatu ndax gu màgg gi ak eh, li ci nekk ci ay xéwal yépp dama doon jaamu yàlla goo xam ne gi gu xaw a metti la ndax dafa aju ci wàllu xiif ak mar xaw a tar lool xaw a metti lool eh, loolu nga xam ne nit ki bu ko bàyyee muy lekk ak naan day metti ci moom lool waaye mu doon jaamu yàlla gu rëy rëy su ko sellalee def ko te yàlla tax euh, nit ki mën na koy def euh, waaye am yum cey boole yoo xam ni maanaam euh, moo koy xañ la nga xam ne lii moom la ca yàlla digg ci ay teraanga yal nañ ci yàlla musal mun muy ci wàllu ay wax wala ay jëf te mën na koo bañ a yëg mën na koo bañ a xaat bàyyi xel sax ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam képp koo xam ne kii yaa ngi woor te mënoo bàyyi wax lu baaxut mënoo bàyyi def lu baaxut ne ne yàlla amut aajo maanaam soxla wut ci yow ngay bàyyi sa lekk googu ak sa naan googu kon loolu tam lu jar a bàyyi xel la li weer yi màgg-màgg lépp ak li muy am solo lépp it nañu xam ne nag day teg ci ak sellal goo xam ne gi lépp dañ koy delloo ci yàlla rek jéem a lu moytu lépp loo xam ne lu koy xajamal la ak lu koy yàq xaddis bu am solo boobu it xaadimu rasul gën ñu ko jàngal gën ñu ko firil gën ñu koo leeral ne isrubba saa imin maal jamaa laysa lahu fii siwal majaa xaadimu rasul dafay wax ne nekk am ne xaadimu rasul day wax ne eh, am na jëmm yoo xam ne yi dal man nañuy woor te koor ga ñuy woor maanaam duñ ci amee lu dul ab xiif kon defe naa koor goo xam ne gi jàmm da koy woor te eh, xiifam boobee ak maram woowee dong la cay amee lu ci am leneen loolu yal nañ ci yàlla musal kon lu koy waral loola war nañ ko gëstu xam ko te moytu ko bu baax a baax kon ñoo bu baax a baax fii tuub di baal ñépp xaq ñaan yàlla dem loolu ñu dimbali ba ñu seewee ko ay déwén ni déwéni déwén ak tal ak man ak xéewal ak kattan gunu gën a mën a taxawee ci liggéeyal islam te jaamu yàlla rek di siyaare mbokk yépp nag euh, di jël néew boobu rek ak ziar bi di ko teg ci loxol kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ñaan mu jottali ñu ko mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu liggéey bu sell bi yépp waaye tamit di ñaanal suñu kilifa boobu sëriñ Mbassou Ndiaye sëriñ Aliou Ndiaye ñaxab ñoo ngi koy wax amin ci ñaan yi ñu ñaan yàlla ñaan yi déglu nañ ko am na solo yal na yàlla nangu ñaan yi te moom it maanaam yàlla gën koo yàggal ci suñu kanam bu baax a baax ndax moom it tamit ak sonn la ci ñun ci liggéey bi nga xam ne bi dañ koo seq ndax wax dëgg yàlla fi mu toll ci ay at ak ñun fi ñu toll Euh, suñu bokkee moom ab liggéey mu ñëw fekk suñu nekk ci biir ak yitte jim ci am ak ni mu ko bëggee loolu ab soññ loolu doon din waaye tamit lu nu sant yàlla la lu nu yëg la lu nu gis la euh, di ko ñala mu gën cee mu ñu cee jàppale bu baax a baax rek di ñaan yàlla ñaanam yooyu yàlla na ko yàlla nungu ak kilifa yi nekk ci biir yëpp suñu kilifa yi ci biir yëpp ñëw leen koy boole di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa tamit ñoo ngi jël suñu nuyoo ak boo xam ne bi dañ koy jëmale ci boroom xam-xam yi nekk ci biir liggéey bi di ko teg ci loxo suñu kilifa rek sëriñ Diir moom itam mu jot lu ñu ko mboolem boroom xam-xam yi nekk ci biir rek ndax borom xam-xam ñoom itamit wàll leen ci sant bu baax a baax di rafetlu seen ab liggéey di ci am xel mu dal bu baax a baax ngir xam nañ ne borom xam-xam yu wér lañu te li ñuy jàngale njàngale mu wér la mu. leer nañ ñi moo xam ne nii képp ku koy topp rek maanaam euh, lu mën nga caa jariñu bu baax a baax ndax bu dee ni da koo xamoon sax mën naa am nga fàtte ko ñu fàttaliwaat la ko wala xamoo ko ñu jàngal la ko nga xam ko te yooyu yëpp day daal di nekk ay yoo xam ne yii buñ ko bàyyee xel rek day am solo lool yàlla defal na ko tawfiix ci biir groupe bi waaye tamit ñuy jël suñu nuyoo ak ab ziyaar di ko jël jëmale ko ci soxna yi nga xam ne ñoom lañu bokkal liggéey bi waaye néew boobu siyaar boobu itam ñu jël ko teg ko ci loxol suñu kilifa gi muy soxna Satu Jóob suñu waajur boobu waajuru Ustaz Xaadim bi ñu xam moom itam soxna si ñoo ngi ko siyaar di jël yi di ko teg ci loxoom moom itamit mu jot leen ñu ko soxna yi nekk ci biir groupe bi yëpp rek di rafetluñ moom itam ab taxawaayam ak taxawaayu soxna yëpp rek di leen gën a seen ñoom soxla yi tamit ci rek maanaam ñu dugg ci biir groupe bi di ci wax seeni xalaat bu ñu amee lu ñuy laaj laaj laajit ñuy laaj ko ndax loolu day am solo loolu ci liggéey bi maanaam ñoom itam seen ak dugg ci groupe bi daal donte dañu dugg ziyaare wala ñu dugg ñaan sax day am solo lool di bañ di ci groupe bi su ko defee loolu day doon loo xam ne lii lu am solo ci liggéey bi la di ko gën a bàyyi xel di leen gën a bàyyi xel bu baax a baax comme daal ñoom woyu taataan yi rawatina soxna yi daal ñoo ngi leen di sàkku rek ñuy gën di mën dugg ci groupe bi daal lépp luñ ci xalaat ci lu rafet ñu wax ko waaye tamit luñ ci mën ci ak ñaan dugg ñaan ko waaye tamit luñ ci mën ci def soñit ñu di ko ci def ndax loolu it tamit wax dëgg yàlla day am solo lool ci liggéey bi ko defee euh, ëtt bi bañ a wéet ñu ci gën di bàyyi xel fu ñu man di toll kon tey laaj yi nga xam ne moo fi am tey rek laaj bi ci njëkk ñu ngi soxna Ndey Jóob ñu laaj lu jëm ci wàllu naafilay koor daal lay laaj mu ne day laaj salaatu tarawih fil manzili mufradan aw jamaatan wa adadu rakaati wa suwar baadul fatihati soxna si ñoo koy ziar bu baax moom itam di ko ndokkeel jàmbaar la moom itam wax laaj yu am solo dafay laaj ne jullik euh, naafilay weeru koor daal lay wax naafila ñu koy tudde salaatu laaj moom koy julli ga moom laaj nag julli xam ne dañ koy julli ci kër ga kenn ànd moom dong di ko julli wala mbooloo daal euh, loolu lan lañ ci wax ci wàllu sharia waaye tamit euh, rakkaa yoo nga xam ne moom lañuy ñuy wax naafil lañ ci weeru koor wi ñaata rakkaa la war a doon waaye tamit yan saar lañu war a jàng ginnaaw fatiha ci rakkaa nga xam ne moom la ñuy julli di ko tudde salaatu taraweex dañ ko naan salaatu taraweex li tax ñu tudde ko taraaweex maanaam taraaweex dafa jóge ci noppalu maanaam mag ñi bu jëkk maanaam saxaaba yi ak ña topp la ñuy wax mag ñi ñu baax ñooñu buñ daa julli julli googu maanaam dañu daan noppalu ci diggante bi maanaam dañu daan julli ñaari rakkaa sëlmal julliwaat ñaari rakkaa sëlmal daal di toog noppalu maanaam nga xam ne dañuy def ñeenti rakka daal yoo xam ne par ñaar lañ koy julli daal di toog dallu ci diggante bi noppalu ab diir boo xam ne bii dañuy toog yor seen kurus di zikkar wala ñuy julli ci yonente bi walla ñuy def ay astaghfirullah ci diggante noppalu googu ñu noppalu ci diggante ñeenti rakka yu ne loolu bokk na ci li tax ñu tudde ko euh, salaatu tarawih waaye itam julli googu bu dee ni ci wàllu nit ki ni mu koy defee ku ko def ci sa kër baax na waaye tam euh, ku ko mën a defe ca jàkka ya mooy gën ndax jéego yi nga xam ni da koy dox di jëm ca bërëb boobee ak yi nga xam ni da ngay dellu si boo ñibb si boo jullee ba noppi yépp dañ la koy defal ay tuyaaba yoo xam ne yi maanaam da koy am moo nga xam ne sallallahu alayhi wa dafa ne koo xam ne kii dafa jóge këram jëm ca bërëb ba ñuy jullee ca julli mbooloo ga jéego bu mu yëkkati ñu bindal ko tuyaaba euh, baal ko bakkaar ay jéego yooyu kon gis nga ko ni mu amee solo dem ak dikkamam yëpp ne ne noonu lañ ko koy defal kon julli ci kër gi baax na lool waaye tam ngir nga dabu yool bu rëy boobu tamit nga xam ne ca dem dem ca mbooloo ma ca jàkka ja wala penc ma ñu koy defee fa nga koy mën a amee ci wàllu jéego yooyu kon dañuy gis ne kon loolu mu wax ne manees na koo jullee ca kër ga waaye dem ca jàkka ja moo gën looloo tax bokk na la ca la ko sabab waaye tamit bu dee kenn la mën naa nekk waaye bu dee ci kër ga it bu dee mbooloo la it mën nañ koo julli ci kër ga doon mbooloo waaye it julli googu waree su ko julli njëkk gee da nga julli gee ba pare dog ko julli moom rakkaay julli naafila googu nga xam ne moom la ñuy def weeru koor yu la yooyu te gën koo seetlu ci weeru koor daal dañuy bëgg nga julli gee ba noppi dog koo julli waaye tamit waxtoom moom waxtu wu naafila woom mooy da tàmbali tàmbale ci boo jullee gee ba keroo fajar bi jot waaye nag bu ñu demee ba fajar jot moom te defoon naafila googu moom deesatu ko julli maanaam doonu loo xam ne dañ koy fay maanaam waxtoom raw na faat na su ko defee lam cee laajaat muy limab rakkaaya borom xam-xam yi dañoo teg ñetti lim yoo xam ne yi bokkut euh, am na ñoo xam ne dañ dangay ngay julli juróom-ñetti rakaa def shafaa ak witar boobu baax waaye itam am na ñu ne da ngay julli fukki rakaa euh, def shafaa ak witar kon mu nekk fukki rakaa ak ñett boobu yi tamit baax na waaye itam am na ñoo xam ne dañu da def ñaar fukki rakaa dooga def shafaa ak witar bu ko defee ñetti lim yooyu daal moom la ñu teg ne bu la ci neex mën nga koo jël di ko naafila naafila yoo nga xam ne yii moom la ñuy def ci weeru koor muy boo jullee gee ba pare teg ca juróom-ñetti rakka yoo xam ne ni ñeenti sëlmal lay doon ñaar ñaar nga koy def boo pare daal di julli safa muy ñaari rakka ak wiitar muy benn rakka boobu nga xam ne bii moom lañ cay teg su la neexee itam ngay def fukki rakka ginnaaw gee nga xam ne da doon juróomi sëlmal soo jullee fukki rakkaa yi soo paree teg ca safa boobu muy ñaari rakkaa yale nga xam ne daa beru ak wiitat yi nga xam ne jum jekk dañ koy def ci guddi gu nekk waaye itam bu la neexee nga jël ñaar fukki rakkaa mu doon fukki sëlmal nga xam ne boo ko jullee ba noppi moom it teg ca safa ak wiitar muy ñaari rakkaa yooyu ak benn bu mujj boobu kon daal bu dee ci wàllu lim bi dal moom ñett yooyu boo ci jot rek euh, baax na waaye nag Euh, li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne Seydina Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam moom maanaam fukki rakkaa la daa julli julli safa ak wiitar maanaam moom daal euh, moom noonu la ko doon jullee te it defe naa bu ñu xool ci saydatuna Aïcha moom noonu la ko nit lee ne moom daal mës gis yonente bi daal maanaam mu weesu lim boobu nga xam ne bii mooy fukki rakkaa yi ginnaaw bu jullee fukki rakkaa ba pare teg safa ak wiitar kon ñetti lim yooyu daal bu la neex mën nga ko jaay jël it maanaam moom lu mu gën a bari moom jële gën a baaxee ndax jéem rakkaa yoo julli ñu defe la ca ab yool fay la ca kon lu mu gën a bari ci la gën a baax waaye itam bu la neex it ngir mu sax nga tànn ci boo xam ne moom di ko mën di def saa ne ndax nag euh, fukki rakkaa yooyu wala juróom-ñetti wala ñaar fukki doonu na ci koor rek lañ ko war a waaye ku ko man Euh, boo ko mënee di def guddi gu nekk naw boo jullee gee ba noppi it ngëneel yu rëy rëy nga ci amee yu baax a baax donte du ci koor dafa rawati nag bu dee ci biir koor gi la tuyaa ba ya gën a bari gën a yokku bu dee tamit ci yan saar lañ cay jàng ngir naafila yooyu itam ba tey soxna si laaj ko dañ ko naan julli naafila moom li ci ëpp ñaare du ñu ko wutal yenn saar yoo xam ne dañ naan lii nga ca war a jàng waaye yoway seet rek la nga xam ne lii mokkal nga ko ci alxuraan wala bu fekkee ne da ngaa mukk mokkal alxuraan jëpp itam euh, faatixa daal saa boo ko jàngee saar woo ca teg wala aay yoo ca teg rek maanaam loola baax na ndax naafila moom defe naa am na ci xeeti naafila yoo xam ne sax dañ la naan moom boo jàngee faatixa peut-être que saar nangam ak yooyu moom yeneen beneen bérébu boppam la waaye bu dee ci naafila goo xam ne gi yaa ko coobarew rek di ko defal sa bopp tànn ko wala gu mel ni naafila ak weeru koor wii wala naafila yi ñuy def muy ànd ak waxtu yooyu farata yi yëpp moom ah, duñ la ne eh, saar nangam nga cee jàng déedéet soo jàngee faatixa rek saar wala jàppandi wala wala neex wala aay yu la jàppandi rek wala yu la neex mën nga ko caa teg su ko defee kon loolu daal mooy lenn ci tënk boo xam ne bii euh, dañ koy tontu soxna si ci laajam yu am solo yi nga xam ne yi da ko laaj mu jëm ci wàllu naafila ci weeru koor waaye tamit nañu xam ne naafila yooyu itam li ma raakaa yooyu tamit bu dul weeru koor it ku ko man mën nga koy def euh, su la neexee ndax taw bi jox ju rëy rëy lay doon ak ay xewal yal na ci yàlla doole jàppale beneen laa bi ci topp Modou Ngom ñi nga moo ko fi yónnee jëwriñu liggéey bi moom itam ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax taxawaayam ci tawfeex gi nu yàlla defal jaare ko ci moom moom dafay laaj ne man yu salli ma jamaati bi xëyri wa boobu da ne dafay seetlu ne daal nit ñi bu ñu dajee ñaare nekk ci dara maanaam doon mbooloo su waxtu julli jotee ba ñu jóg di julli daal dafay seetlu nag am na jëmm yoo xam ne dañu daal di jóg rek daal di ànd ci julli gi te dafay mel ni dina ci am ñoo xam ne ñii eh, dañuy julli rek waaye duñu yorom jàpp duñu yorom muy laaj nag loolu moom lan la ci sharia wax muy laaj ndax eh, julli moom dafay da koy war a julli saa soo gisee mbooloo ma julli di amam jàpp wala déet loolu lay laaj kon loolu lañ ko ci tontu bokk na ci dañ ko naan xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama laa salaatan bi gayri tuhurin wala sadaqatan min xulul seydna muhammad salaa dafay wax ci wàllu laab bala ngay julli muy boo waree jàpp nga jàpp soo waree sangu farata yi nga sangu farata doga julli daa ne yàlla day di nangu gën nag julli mu doon julli goo xam ne gii nit ki da ko julli te maanaam laabut nee daal nit ki su laabut war a jàpp-jàpp wala mu war a sangu te sanguwut te amu ca ngant te bu amee ngant daa war a tiim ba tey day nekk ak laab ne ne kon ku julli te àndoo ak ak laab te amoo ngant ne julli googee yàlla du ko nungu kon foofu rek ci tënk mën nañ ko yem ci ne ki nga xam ne kii euh, dafa nekk ci mbooloo mbooloo ma waxtu julli jóg jot ñu jóg di julli yorutam jàpp mu ànd ci julli ga kooku moom maanaam ñun lañ ca defam seetlu mooy boo ko gis seet boo ko gisee ñaare kuy defee noonu ñaare doonut ab jullikat maanaam koo xam ne kii day na ca mbooloo ma rekk mbooloo may julli mu daal di ci jóg ànd doonte yorutam jàpp boo ko dee toppatoo di xool ay mbiram du doon ab jullikat boo xam ne bii ku fonk waxtu julli di ko julli nañ ko war a jullee moom lay doon soo ko seetloo rek du ko doon ndax ki nga xam ne kii ak jullikat la moom yaakaar naa li muy tàqalikoo ak am njàpp bariwut te it bu nekkee ca mbooloo moomee bam leer ko ne yorutam jàpp itam xelam dina nekk ci balaa waxtu julli wa jot mu dem waaje yeesalaat am jàppam doog ñëwaat toog di xaar waxtu wi wala bu fekkee ni nekk na ci xat-xat ba jamono yooyu mënta dem waa ji te mbooloo maa nga julli tamit du tax man mu ànd ca mbooloo ma ndax dina xaar ba jéem a góorgóorlu balaa waxtu waa jàll yitteem yooyu ko téye mu dem waa ji jàpp du julli waaye nekk ca mbooloo ma rekk du tax ñuy julli moom mu daal di jóg ànd ca mbooloo moom it yorut am jàpp man daal la ma ko gisee mooy loolu moom ku koy def rek damay jàpp ne maanaam bëgg jullikat dëgg-dëgg na nga xam ne nii ne la nit ki war a fonke julli di ko def loolu Modou Ngom laaj ci ne ndax day dañuy day dagan nit ki bu ko waxtu jotee rek mu julli déedéet maanaam nit ki dafa war di góorgóorlu bu waxtu jotee wala muy waaj a jot bu yorutam jàpp mu dem fexe yi nu mu jàppe su mënee jàpp te amul ngànt su amutam jàppi tamit dafa war a tiim su ko defee tiim dañ koy def ñetti xaaj nga xam ne tiim ñi nga xam ne ñi may nañ leen ñu def ko mooy ñii mooy ki ci jëkk mooy àll yaa isu ak al mutaraddidu ak ar raaji benn ñetti ñi ñoom la ñu may ñu jàpp ñu tiim tey booba ngànt tax ñu may leen ñu tiim kon bala bala ngay mën a ne euh, damay tiim sax da bokk ci kenn ci euh, ñett ñi aliyaayis mooy ki nga xam ne kii dem na ba xam ne moom du amam ndox ci biir muxtaaram waxtu wi ne kooku ñu def atteem mooy euh, su njaal benn muxtaar gi duggee rek maanaam su su waxtu wi jotee rek balaa muxtaar mi na daal di tàmb na daal di tiim daa di julli ca njëlbéen ak muxtaar ga ki ca toppaat mooy almutaraddid mooy ki nga xam ne kii day sikki sàkka ndax dinaa mën a amam ndox wala duma amam ndox balaa muxtaana waxtu wee jeex kooku itam dañ ko naan euh, bu fekkee ni yaa ngi sikki sàkka ndax di nga amam ndox wala doo ko am da ngay xaar ba muxtaar mi xaaj mu day xaar ba muxtaar mi xaaj maanaam waxtu muxtaar yu xaaj mu daal di doog a tiim daal di julli balaa muxtaar ma jeex ñetteel bi ki ñu may mu tiim itam mooy ki nga xam ni ki yaakaar na ne dina amam ndox balaa euh, muxtaar muxtaar ma jeex kooku dañ ko ne da xaar ba muxtaar mi des tuuti maanaam ba ca mujjanteel ak waxtu bu muxtaar wa su ko defee su amutam ndox te ngànt ga dañu mu doog a tiim daal julli waxtu wa kon ni daal ci wàllu tiim ñett ñii ki nga xam ne ki moom naagu na ne du amam ndox te am na ngaan bu dee ni ngànt la itam ngànt ga du dañ balaa muxtaar ma jeex su su waxtu jotee dañ la julli ci njëlbéenal muxtaar gi ki ci topp mooy kii sikki sàkka ndax dina amam ndox walla du ko am wala bu dee ni ngànt taxa mu war a tiim ndax ngànt googu dina fi dañ balaa muxtaar mee jeex wala du jeex dañ ko naa dewal ba ca digg muxtaar ma boo amutam ndox moo jàpp wala ngànt ga dañut maanaam nga tiim doog jàpp ki nga xam ne kii dafa yaakaar na dina amam ndox wala mu am ngànt ak mënta jàpp yaakaar na balaa muxtaar mee jeex ngànt googu yooyu dañ moom dañ ko naa xaaral ba mujjantal ak muxtaar ga nga tiim doog a eh, julli eh, loolu la lan la ñuy def ki nga xam ne kii war naa tiim mu tànn ci yooyu boo xam ne bii ca la toll rek mu tiim ca waxtu wooyu nga xam ne bii moom lañ ko wax qaala allahu taala ya ayuha alladina amanu ida qumtum ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ila alkaabayni wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw lamastum nisaa falam tajidu maan fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu yàlla subhaanahu wa taala sax nag dafay wax ne yéen ñi nga xam ne ñu gëm ngeen daal su ngeen jógatee jëm ci julli na ngeen jàpp ci ni ma ko waxee maanaam ci gàttal na ngeen jàpp daal di nuy wax ni nuy war a jàppee waaye tam na ne su fekkee ni eh, am ngeen ngànt mënu leen a jàpp wala ngeen am am ndox te am ngànt wala amu leen am ndox ne leen ngeen tiin kon nit ki daal euh, duñ ko may du am benn sañ-sañab coobarewu rek war mën a jàpp jàpput euh, mbooloo ma waxtu julli jot ñu jóg di julli mu ànd ca ji di julli bu boobaa julleem googee du baax ndax julli gi lee ñu waxoon ca xaalis ba rek Seydina Muhammad noonu na julli goo xam ne gi boroom laabut ba muy julli maanaam ne googu julli duñ ko nungu beneen laaj bi ci topp soxna Cubba Njaay Fatma moo ñu ko yónnee dafay laaj moom soxna si man alayhi daynun wa maata saaxibu dayni xabla day ni dafay wax ne day laaj ki nga xam ne kii dafa leban ak xaalis maanaam dafa amee bor xaalis boobu eh, ki nga xam ne kii moo ko ko lebalan dafa faatu njëkk mu koy fay bor boobu nga xam bii moom la leban ne ne kon xaalis boobu nan la koy def maanaam dafa lebab xaalis daal waaye ka nga xam ne kii moo ko ko lebalan dafa faatu te moom feegu ko bor boobu dañ ko ne fal yardu lil amwaala lil amwaati in wujudu dëhra de lartiyaabi fa in lam yujadu fali warasatihim wa in lam yujadu fa tasadduqu anhum euh, loolu moom atte bi ci am mooy dañ koy delloo moom dañ dañ koy delloo waaye ci yan anam la ñuy delloo xaalis boobu euh, dafi day charia dafay teg ne ki nga xam ne kii dafa yoreel nit alal xaalis walla lu mu mën a doon maanaam waaye ameel na ko ko yoreel ko ko moo xam bor la wala lu mu ko dénkan la lum ci mën a doon ne ne da koo war a delloo seeni boroom su ko defee bu fekkee ni kooku koo lebalan xaalis bi dafa faatu eh, nan lañ koy delloo moom mën mëne see ko koo delloo moom mi faatu waaye da ngay xool ña nga xam ne ñi maanaam ñoo ko war a donnu maanaam ñu nga jox ko loolu mu la lebalan ñu boole ko ca seen miraas su ko defee su fekkee ne ñu ko doon miraas xool nga gisatoo kenn ko ca bokk wala xamoo ko nga gëstu ko ba mu leer nañu ne man kat ñii ko war a doon kat man xawma ci kenn gisuma leen ne nooy def alal ja ne ne da nga leen koy saraxeel maanaam danga koy saraxeel borom da koy wut da wut koo xam ne kii yelloo na ñu jox ko sarax nga saraxal nga boobu te sarax ba koy saraxal nga yéene ca ne diw laa koy saraxeel ndax moom moom xaalis bi kon daal bor moom ku ko am su fekkee ni boroom a nga fa da ko war a dem delloo ko ko su fekkee ni boroom dafa faatu nag léegi da ngay dem ca ña ko war a donn nga jox leen xaalis boobu ne leen jiw mooma ko kon lii ci seen alal war a donn la su fekkee ne ña woyu donn yee itam gisoo ca kenn wala xamoo leen eh, xaalis boobu maanaam da koy saraxee boroom da koy sarax sarax boo xam ne bii boroom ngay yéeneel ne ko ne moo ko saraxee mooy ci tënk moom itam atteeb bor bi nga xam ne bii nit ki da koo leb te kaw ko lebaloon faatu njëkk mu di ko fay beneen laaj wala yeneen laaj yi ci topp sëñ Basiiru Fay moom itam day laaj lu wàllu lu jëm ci yéene weeru ko yéene woor weeru koor laaj ndax weeru koor jënn yéene doy na ca wala nay aaju ñuy baamu yéene yi saa su nekk waaw boroom xam-xam yi sariya yi di dañ ne koor moom bu duggee bu jotee yow miy woor maanaam mën ngaa fas benn yéeney koor maanaam fas sa ci guddi gu jëkk gi yéene ne dama fas yéene woor weeru nañu boo ca yemee doy na ngir yeneen fan yi fan yi weeru koor ga yépp moo ko yóbbaale waaye itam dañ na sopp nañu nag bi nga fase yéene boobu itam dañoo sopp guddi gu nekk maanaam nga yeesalaat yéene jooju maanaam fasaat ko di sa xoo waaye ne boo defee benn yéene baax na waaye dañuy sopp eh, guddi gu jot nga yeesalaat yéene mu gën a yeesaat ci sa xol gën a nekkaat ci sam xel nga gën koo dëgëral benn bi ci des muy euh, day laaj xukmul ni'matu bil lido fi ramadan day laaj euh, lido ci weeru koor xam naa lido moom dañuy wax lido rek ndax bu ñuy xool àtte ba bu dee koor la ak bu dul weeru koor rek ñoo yem kon dañuy xool lan mooy àtte fo ci ab lido dañ ne xaala baadul ulama kullu laayibin fii ximaarun wa huwa muharram boroom xam-xam yi ñenn ñi am na ci ñuy wax ne lépp fa moo xam ne ni dafa xeetoo wàllu kart maanaam dafa niroo kart xeeti kart yooyu yëpp lay wax ne ne loolu lu ñu tere la maanaam lu araam la te lii doom yi muy laaj dañoo jël ak atteeb fomm yi ñuy waxee al laayibu bi bi nard bi layo bi nard muy nard nag laa xamul ndax nee baat bi eh, du arab waaye dañ ko arabal di ko wax nard xaw ban xeetu folo waaye dañ dafa arab maanaam waree su ko def te neneen ñoom borom xam-xam yi atteeb nard muy focil nard mook mooy atteeb fo yor ab lido di ca lido kon dañuy jàpp daal lido daal moom du yëfi jullit dañ ko war a bàyyi ndax ne ne nard mi dafa araam te atteem nard mooy atteeb bido kon jéem dañ koo tere dafa araam moom jullit bi weeru koor ak ñàkk a doon weeru koor a yem ca moom waru koo jëfandikoo dégg nga fakka annama eh, xaala sallallahu alayhi wa sallam man laahiba bi nardi fakka annama sabara yadahu fi laxmil xindiir wa damihi dégg nga sallallahu alayhi wa sallam ne ne dafa wax ci nardu bee mën a wax xeetu fola euh, nardu ñi ma gën a xam xeeti fo yoo xam ne dinañ koo xam bu ñu ko déggee ñu man ñu ko gën a leeral nardu ne ne foo ma lu ñuy foyla loo xam ne lii dafa araam xeetu carte la te euh, atte boobu moom la lido am euh, ci nardu boobu la sidna Muhammad wax ne képp koo xam ne kii yaa ngi fo ci nard nee na dafa mel ni da jël say loxo dugal ko ci biir yàppu mbaam xuux ak ci biir dereti mbaam xuux loolu nag lam ci dund mooy da cay dugal loxo ya mel ni da koy lekk ak di naan deraja te ne loolu dafa aram ci jullit muy yàpp maam xoo ak deraja ne noonu la mela la ki nga xam ne ki day fo ci nard te ne naa la nard boobu yem dafa aram atteem boobu la boroom xamam jël tegal ko atteeb lido kon واللعبة لللدو باللدو تأخذ حكم اللعبة بالنرد وهو التحريم nee la borom xam-xam yi ak teeb fa moom mu ñu fa ci nard moom la ñu ak teeb lidoo euh, ba tey akkada ahlul ilmi ala anna xukma leebati lidoo huwa tahrim wala tajwidu charan dégg nga boroom xam-xam yi itam booy jàng fiqh dañu gën a leeral di gën a dëgëral ne foo maanaam lido daal euh, foo moo xam ne mi dañ charia da koo tere la maanaam deesu ko may ab jullit moom moo dagan ci moom mu di ko def benn yoon kon yàlla yàlla na defal tawfiq bi jaay seen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam